Euh, sunu plateforme yëpp mic TV FM fmnet.tv tay nak dañ fi am gan gu dañ fi am ben centre de formation le centre Mambirom Birame Diouf ñow ñëw à travers son coach El Gissé Guissé El Guissé ma lay nuyu. ma fay El na nga def. El Hadj est-ce que mu nañ xam mm, centre de formation Mambirom Birame Diouf kañ dañ ko créé woon. Euh, bon centre bi ñu ko créé en décembre 2014. décembre 2014. 14 mm-hmm. par kan moo ko créé parce que bu ñu déggee centre Mame Birame Diouf rek naturellement dañuy sentir ne est-ce que lu Mame Birame moo ko man maa initié que Mame Birame nekkoon na koo xamante ni euh, bi ñu entraîné terrain bi moom fa la démarré woon carrière mooy foofu ci ci Parcelles Assainies unité 21. unité 21 nii euh, léegi ba nekk li mu nekk ñu bu ñu bëggoon booy que ni possible moo tax ñun tamit ñoom initiative boobu noonu créé centre bi. Eh, tuddee ko eh, ba ñuy débuté nag métti woon na trop ndaxte ñun kenn lañu woon mais ñuy xuusi dem ñuy xuusi dem ba après par suite liggéey bi tamit euh, fay na quoi. ok si xuus boobu bu ngeen di doog a ibbi centre bi da ngeen amuloon ku leen jàppale. voilà voilà loolu woon quoi muy cadre matériel muy maillot amuñu woon dara quoi dañu demee noonu rek. ok mais est que centre bi bi mu bi mu mettre bi ngeen ko mettre en place ba tey est-ce que objectif en tant que coach. en tant que des entraîneurs est-ce que yéen a koy atteindre. waaw duñ ne duñ ne à pour cent quoi mais di leen ne alhamdulilah parce que bañ koo créé en 2014 euh, dawal nañ benn un an un an et après par la suite maam Birame Touré bu mu yëgee ne mooy parrain maam Birame mooy parrain wu école de foot ok est ce que xam jour yi nekk dañu en internat ou en externe non pour l'instant euh, projet projet pour interne jour yi mais xam nga pour l'instant, nous jour nous, entraîner quoi. ok est ce que centre comme centre yi au Sénégal Dakar sacré est ce que c'est payant. Euh, parce que nous sommes tam ñu nous, Nous, ñun nous quoi euh, ils ne bonifient que quelques années euh, fu ñu waxee GIE wala fu ñu waxee jàmbaar waxee ko centre de formation. centre de formation maam mbirum Diop. ok euh, ba pare euh, dafa mel ni yéen da ngeen ren da ngeen accédé ci benn championnat boo xam ne nga war a dem football yi ban championnat la. waaw waaw waaw au niveau au niveau au niveau national la quoi parce que ba ñu créé centre bi ba léegi am na sept ans te boobu léegi ñu ngi woon ci parcelle di jouer ay tournois genre affaire yooyu noonu mais après par la suite gars yi gis ñu booy ak niveau bu ñu am après di di remercier waat encore une fois fan ñom mom moom biram bi parce que ñom ñoo ñu dooleel ba ñu mëna a affilier au niveau euh, fédération pour ñu mëna a déglu incha allah préparer compétition boobu noonu quoi en junior et en cadet. en junior et en cadet mais euh, maintenant moom biram le parrain. Mhm. lui qui vit en Europe qui est un footballeur de haut niveau. Mhm. est-ce que yow en tant qu'entraîneur boy boy yi nga xamante ne yaa leen di coacher est-ce que euh, yaa ngi siy gis ay talents yoo xamante ne un de ces jours Sénégal dina mën a compter si ñooñu.

Messi Messi amoon na am si. am na ok mais est-ce que xam nga tey avec Sénégal avec les coachs nationaux. problématique boobu ba tey c'est pas résolu maanaam Sénégal ba tey mu ngi jo mu ngi jooy. trophée continental. est-ce que tey jours yi nii est-ce que du ñu def du ñu dem ba ci biir tamit wan la ginnaaw ba on le voit quoi. da ngay gis yoo xamante ne fi ñuy déparé après kenn du xam fan la ñuy mujjee quoi on voit beaucoup de jours yoo xamante ne. xam nga li muy wax si si non xam naa xam naa man moom ba ma nekkee si eh, mun naa ne yàgg na yàggul mais bon man yàgg naa di def ay coach mag yi ma doon wax naan soo jàppee soo soo bëggee jàpp warkat jàppal jour mais ñun moom yàlla dafa def ni lu ñuy def euh, passion la d'abord quoi da dañ koy def te yàlla tax quoi xaar ñu dara si ñoom tamit quoi voilà. merci monsieur El Hadj Guissé. merci vous remercie. ok merci.